que euh, yaakaaroon na ne balaa ñoo mën a lijjanti ba ñu war a bokk parce que bokk na ci li ngeen kii ñooñu ils sont signataires balaa ñoo mën a lijjanti loolu que ce soit du côté de l'État mi ko condamné mi ko mi mi leen mi leen teg daan ñu leeral ñu ndax daani yi euh, loolu la wala du loolu ñoom it ñu ñu seetal seen bopp balaa ñu mën a bokkaat si si si si course est-ce que y a pas une contradiction parce que ça a été une demande sociale quand on a dit de poursuivre euh, ñoom Karim ak ñenn ñi aujourd'hui on se retrouve pour dem négocier waat seen participation non c'est nous qui sommes d'accord sur une chose xam nga ci lan lañ d'accord mhm. que le président Macky Sall a utilisé la justice pour éliminer des candidats comme il est en train de le faire avec Ousmane c'est-à-dire que boo gisee tey pourquoi le problème de de de de de de du du pass de de Ousmane Sonko c'est-à-dire que interpeller ñëpp parce que dañ naan ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw c'est ça la réalité si on prend aujourd'hui euh, comment la justice est instrumentalisée naka la ñuy gaawale les procès politiques xam nga c'est-à-dire que nga mën a comprendre pourquoi beneen bi mooy en fait c'est F24 dans ces point c'est de dire c'est-à-dire que ñëpp ñi nga xamante ni woon ñëpp ñi nga xamante ni ils sont sous le coup de la loi parce que c'est des procès politiques et autres ñu génne leen ci processus bi dañ leen dugalaat ñi nga xamante ni c'est-à-dire que en tout cas dans des procès yoo xam ni jàpp nañ ni politique la nañ ko teg ci suuf bàyyi leen ñu candidater ñëpp bokk c'est ça c'est ça des élections libres transparentes démocratiques et inclusives c'est ça la demande du F24 donc sur ça on est très très à